Euh, àllarba ji weesu ci TFM ak Barthélemy Diaz meeru Ndakaaru ak euh, fen yi mu fenel euh, ñi nga xam ne ñooy waa groupe Futur Média di leen jiiñ dëmm loola desu ko nangu léegi vous saurez que vous n'avez pas le monopole du pourrissement et du terrorisme intellectuel fii ay doomu jàmbur ñoo fi ne suñuy waajur ay gor lañu di ngeen xam ni duñ ko bàyyi noonu nga ni dañuy faralaate yow Barthélemy Ngom xanaa yow lañ faral parce que 2016 ak léegi def nga fi 37 émissions ah te émissions yi saa yu do ànd ak sa sago waye dañ lay dañ lay gérer 2022 gi def nga fi 4 émissions de RFM ak ak TFM il faut arrêter avec ça def nga fi 37 émissions 2016 ak léegi euh, baadoo la nga mën nga fen réew nga ñu ak